seen problème mooy nu ñu fexe ba am benn condamnation même su dee au sursis pour que Ousmane Sonko dootul nekk candidat en 2024 moo tax ma ne kenn ku nekk ci militants yi ak militantes yi na fagaru waajal boppam parce que Macky Sall waruñoo ëpp fulla bu loolu amee rek mooy li ñuy woote ci souveraineté bi ñu bëgg ñun indépendance véritable bi ñu bëgg ci suñu réew moomaat suñu bopp bi ñu bëgg kon loolu du dëgg si ñun li muy def yëpp nag mu ngi ko lal ci ñett ba ñeent moo ngi ko lal ci police wala ñiy commandé police moo ngi ko lal ci gendarmerie wala ñiy commandé gendarmerie moo ngi ko lalal ci benn groupe magistrat boo xam ne ñëpp xam nañ leen waaye mu ngi ko lal ci benn parti média bi nga xam ne saa su ne ñu koy jox leen ne leen bind leen lu bon ci Ousmane soow saa su ne ñu def gros titre bind lu bon waaye c'est peine perdue ndax koo xam ne yaa ngi koy fexeel boobu ba léegi tuumal nga ko lu ne yàq nga deram te su génnoon léegi ci ci taxaw ci trottoir bi meeting am fii nga war a xam ni sa pexe na sax na waaye buñ leen xeet ci seen i pexe rawatina nag bu ci France duggee gis nga suñu toogee senegal bay wax naan France kii la bëgg comme candidat kii bëgg ko comme candidat rek wane na ñun tardé nañu. loolu doo ko mës gis ci pays yi nga xam ne Angleterre moo leen colonisé woon amul Nigéria amul Ghana amul feneen suñu demee ba journaux français yi nga xam ne ñooy porte-voix de la politique France-africaine ay le monde diplomatique RFI France 24 ñoom ñëpp ñëw Sénégal naan dañuy dem ci benn affaire privée di interviewer wala def ay article naan la France ne veut pas de Ousmane Sonko euh, et cetera veut pousser Macky vers ceci nangam nangam ça veut dire que ñun duñu ñu réew bu indépendant est-ce que France bu amee élection am na benn sénégalais bu am sañ-sañu toog fii naan ñun de Sénégal diw diw est-ce que président Sénégal sañ na sax naan man diw laa bëgg mu nekk euh, président de la République en France lan moo tax ñun ñu ñàkk fayda ñàkk fulla ñàkk personnalité ba tey ñu ñuy patam patamee suba ak ngoon loolu mooy laaj bi dem nañ sax bañ ne seen dernier article bi ñu bind nee nañu Poutine gagnerait à se rapprocher de songo ma feddali benn mbir gis ngeen ñun nii amul benn benn benn benn puissance étrangère bu nekk suñu gannaaw amul benn benn réew étranger bu ñu amal relation benn président en exercice moo mës waxal directement président africain bii la muy Guinée awma benn lien muy ñaari gine yi bokk awma benn lien avec une puissance étrangère waaye nag ma wax lu leer tey jii su ma mënoon dajeeg Poutine Poutine suba suba suba su ma amoon occasion dajeeg Poutine damay dem dajeeg moom waxtaan ak moom parce que je suis un homme indépendant su ma mënoon dajeeg Biden dinaa dem dajeeg moom su ma doon dajeeg Buhari dinaa dajeeg moom te bu ma demee dañuy toog bët ak bët waxtaan ku nekk wax xalaatam foofu lay yem. ma mën a dajal dinaa dajeeg moom man du ma ku ñuy orienté wala ku ñuy wax kooy waxal ak koo dul waxal je suis un homme libre indépendant dans un pays supposé libre et indépendant ba tax ñuy wax militants yi ak militantes yi nañu xam ni lii lépp lu muy gën a mooy candidat France ñëpp xam nañ ko ñi fi France teg xam nañ leen la ñu liggéeyal France xam nañ ko ñun nag duñu candidat France tey àdduna du dox ba ñu dem los gombaanu di sukk ci kanamu France àdduna du dox ba ñu sukk ci kanamu benn réew ci àdduna tey na leer ñun du peuple français la ñu amal problème déedéet biir France am na ay nit ay homme politique ay universitaire ak ñeneen ñoo xam ne discours bii ñuy wax ñun moom la ñuy wax biir France am na jarul ma leen di cité xam ngeen leen am ci ñoo xam ne ñu ngi waxtaan ak ñoom suñuy kuréel daje nañu ñu ngi waxtaan kon du problème mu peuple ak peuple parce que sénégalais dañu gaaw ci raccourci mais problème mu régime yi fi nekk ci France politique bi ñuy doxal du ñu nangu mu wéy fii biir Sénégal moo tax li may daanelee mooy waxaat ko France nañu génn ci suñuy mbir 2019 dama dañu génn ci élection bi ma ne ma waa France bu dee am ngeen dégg-dégg di ngeen xam ni li juddu biir Afrique caaxanteewu ko xoolaat leen seen bopp bu ngeen buggee continuer am des relation ak Afrique lu ko may di ngeen génn Afrique ci anam boo xam ne du gën ci yéen dafa mel ni boobu ba léegi France dégguñu moo andi li xew Mali moo indi liy xew jamono ji ci Sénégal moo indi liy xew Tchad mooy andi liy xew Guinée mooy andi liy xew fépp foo xam ne Afrique boo xam ne France moo ko dumee woon lii la ñu waxtaan ak mbokk Sénégal wax leen ni désormais nañu xam ne ñu war a liggéey yépp dinañ ko continuer liggéey waaye dañoo def cap ci 2024 te bu soobee yàlla ñaan nañu yàlla te am nañu espoir mooy yaakaar gu rëy ni bu soobee yàlla dinañu gagné élection boobu